kon na mën naa doon dëgg allah xaw ma si dara doon. yaay faal yaay yaa ngi bëri ku yaa moom nit ñi quoi li ma lay wax nii lépp xam nga ko. mais bëggoo wax bu ma si xamoon dara gis nga bi ma laajee euh, ci ci ci Ousmane Sonko euh, Macky Sall ak euh, kii la ña ma xam. Mhm. dama la caa développé wax la ca lu ma xam lu ma xamul nag. wallaahu xaw ma ci lu ma xam nag boo ma ci laajee dama la ci xuusal dama la ci nice nii gratuit. sa xarit bi dégg nga ne neen day xalaat géej gi Kounkandé. nee na jàppaat na jour de mais gis nañ ko ndeysaan ci sa ndogu yi bu ñëw def loolu sama xarit la nag te xoolee xanaa xamoo de àdduna kunkante moo ci gën a neex xam dëgg la loolu toog na ngeen waxtaan loolu dëgg la waaw kung dafa neex sama xarit la rek mënuma kaa wax mais ku baax la ndeysaan waaye dama koy woon na ko génne bàyyit géej gi ay keroog ma seetaan émission mun a mag mu ne nii géej gi maa ngi lay lemt maa ngi lay lemt boobu dama doon dréngu ma ne ko kum lay lemte mu ne géej bi laay lemt waaw mais dafa neex yàlla xëy na may yàlla may na ko nee na bii paa nag moom day dem uti këyit yu leer naañ pour xar ko léegi nag loolu ah? loolu la ñëpp waaw loolu la wax nee dem uti këyit sama xarit bi tee ngaa bàyyi géej gi waaw kenn du ko téye hmm. voilà euh, sëñ daamit it euh, nee na junneem yi nga xam ne 73 junneem am nee na sëñ daam waxul dëgg fii la toog moom moo wax loolu nag. kumkandee ko kumkandee ko kum de xam nga ne fit moom si moom la jeexee sama xarit boobu dafa sadik moom. alors mi ngi noonu Yaay Fall léegi yow lamb ji. Euh, lamb yi waaw sëñ Daam maanaam gëj nga koo gis. waa gëj naa gis. maa ngi koy ah. nuyu sama xarit bi sañ Daam sekk borom mais seen plateau bi dafa am benn waay bu fi toogoon ci sama problème fi amoon ma gis ko mu ne sëriñu santar xaw ma santar la wax xaw ma xaw ma sax. charlatan voilà. am na lu mu wax daal benn xale bu góor la nii bu mu sew te ñuul nii te am sikkim bu ndaw. lu ma wax dama ko xàmmeewul nag. mu naan dafa teg sama video ba pare daal may. dañ ko invité woon. invité woon ngeen ko fii dinaa la envoyé vidéo bi te moom dinaa ko dinaa wax moom mu ñëw toog ci siège bi li mu ma waxoon mu delluwaat. ok après nga yónnee mu ñu xool kan la. waaw d'accord. man na ma la benn affaire barki Serigne Saliou may tàll sama loxo fëgg sama dënn réew mi ku ma fi tooñ. da koy gis. voilà ku ma tooñ ma du tooñ. Mm-hmm. man sama waxu dem mooy sama waxu tey du ma tooñ waaye barke maam Cheikh Fall du ma sëriñ yi naan bàyyi naa la yàlla dama ah, lay bàyyi del del bàyyi nag dëgg la mun nga bàyyi yàlla mais ku ne la mënoo dara xamoo dara soo ko wanul dara dangaa am xamul dara ah ko da nga bëgg ki la wax loolu toog fii wax la ko nga won ko nga ko kiraama su ma ko wanul dara man du ma wan kiraama de doo def yooyu kiraama ay affaire la doo def yooyu mais man baatin laay waxee bopp man mun naa toog nii raser loxo jàkkaarloog yow def la li ma lay def piqué la ma lay piqué xam nga piqué. waaw man sama yëpp ci cerveau lay dox sans ay sunguf ay reen ay xaatim ma dama garaaw feuse kon yow ngay ñaanal ci loo leen di ñaanale man su ma toogee ak yow jàkkaarloog yow mun naa daaneel sa rab te duma la laalal dara xam nga loolu déedéet barke alxuraanu karim mun naa daaneel sa rab te duma laal sunguf duma laa dara man duma nit jinne laa ah déedéet waaye. <laughs> barki Serigne Saliou luy nelaw ci jinne mi ngi si man. ay waay fës fës jinne la toogal waaye man du du loo xamante ni lu ma lu ma lu ma sabab la man su ma yeboon ne man yaay faal xale laa si métier bi maa si gën a nekk xale. ay mag ñoo si nekk sama ay kilifa ma leen di jox seen wàccuwaay képp kuy sëriñ dama lay jox sa wàccuwaay di la nuyu di la ziar. di wax ni ak lu mënti xew yaa ma si mag jiituma ci mais du tee mhm. damay jox ñëpp seen wàccuwaay. ay man jinne laa toogal waaye nag. man li ma xam laa xam ne yàlla may na yaay faal loo xamante ni day fëgg dënnam su ma fëggee sama dënn nga gis gaynde bëggoon naa la laaj loolu nag parce que man lu tax yaay faal ci lan la wéeru ba fu mu toog di vanté wu ne moom jinne la dafa mën dafa lii fit boobu ci lan wéeru ba am ko si xam nga ñaata laa feebar mhm. trois ans xaw ma deux ans nga tëdd ko jinne di ma mbej di ma dóor di ma def ay affaire yu sew yoo xamante ni sama life lu bari ñoo ko yàq kon kay yow yaa Ouzin Keita yéene Ouzin Keita tamit. ah yee des na si kanam tuuti ci réew mii maa koy téye fii sama digg loxo. yow mii man du ma mës a xeew ci àddina ma wax la loolu du ma xeew xanaa li ma àndal dem mere ma dem yoonam su boobaa ñu sum ma xam ne xam-xam nekkatul ci man damay toog courage bara. nekk ci say business ndax moo tax coow li fi amoon sëriñ si jigéen si gis naa leen ngeen profité ku ne di fëlëxoo di wax damaa bëgg ngeen arrêté te réglé. Mhm. man maa leen di déranger saa yoo leen yeewoo da ngeen may gis. xola su ma xamee ne dara da lay déranger dama la koy def di la kokkali di la naqaral sa xol bi di wadd sa doo ma mënal cent francs. jinne ju pànk toog nii jinne ju pànk. man pànk bu yaru laa. parce que dama lay wax liy dagg sa xol te duma la dépassé. noonu la ma yàlla bi ne damay wax liy dagg sa xol te duma la dépassé. man dama pànk fës damaa naqari deret mhm. dama ko toogaale en fait toogaale en ku ma mhm. yeewul doo ko xam si man dëgg la man sama liggéey bi boo ma yeewoon quatre heures du matin jàkkaarloo nga ne ma lii laa bëgg dama la koy defal courte courte mhm. fan yii def naa émission boo xam ne am na loo xamante ni la benn kilifa doon xëccoo du la wax turam du ma wax kum doon turam du ma doon waaye dafa génne xaalis bu bari teg ko ci kaw taabal ji dóor ko ma liggéeyal ko lu ma liggéeyal kenn dafa am lu mu doon ah, am na ko baa ah am nga ko làq la woon. dama doon bañ wax. dama doon bañ wax mais kon ma lay tegal ay audio nga xool. man du ma defantu man du ma nit. jinne laa. xam nga nag sànq yaa ne tubaab kayit la xam. waaye gis nga ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan nii ci internet bi ma dañuy bëgg euh, dañuy bëgg euh, duut baaraam. moo tax des fois li ngay wax ni des dañuy bëgg ngay ngay ngay ngay xóotal mhm. bu fekkoon gisoo en fait danga naan gisoo mais boo duggee YouTube nga xool yaay faal nu muy seetee. nu muy doxalee nu muy waxee xam nga tiktok bi fu mu toll nii dama koo poñ yaa ko téye waa loolu yàlla dogal na ko instant bi pour seet moom yaay faal bu taalee laay fam tak réew mi yëngu ba xoolal bu may seet na dama tëdd sama lal mel ni li may defu dara safuma ci <laughs> day ñëw ci man la looloo ma jaaxal ah, parce que mi ngi man ah, parce que mi ngi man feuse mais doo toog mu jaaxal la loolu yow doo toog waa jaaxal benn parfois nag gars yi branche sama loo xam ne après damay question sama bopp. man a ëpp ci sa bopp bi man nit laa wala lan laa wala. Mhm. man li may àndal dañoo soxor dañuy def nii kut a kut. nekkuñu fii ba. Hmm? ñooñu amul fu nekkul. ah déet nañ. wóor na sëñ Touba Feuz li may recevoir si ay appel barki alxuraan man xam naa sax. ku ne di ma woo dama ko wax en direct xam naa kilifa bu nekk woo nga ma ci àdduna jotoo ma waaye maa ngi la koy jéggalu mhm. parce woo ma jot ma jafe na saa yu ma yeewoo 8000 message vocal laay jot chaque jour nag laa la 8000 mhm. message ku ma soxla wooteel appel whatsapp wala appel normal boo nekkee Sénégal boo nekkee Europe nag mun nga vocal mun nga woote appel normal te ngay insister nag mhm. mais soo wootee benn yoon jotoo ma nga bàyyi doo ma gaaw a jot parce que nag maa gën a naqaree jot ci Sénégal ma wax loolu nag ma koy wax parce que sama téléphone bi dafa dem ba dafa saturé mhm. damay wax dëgg nag dëgg la nañu insister parce que am na kilifa yoo xam ne dañ lay soxla. Mhm. bu ngeen insister ba jot ma mun naa yëkkat sama numéro personnel jox la ko ndax du kilifa yi su may liggéeyee ñoom loolu guddi laay dox. waaw parce que ku ci mel ne man sa numéro personnel laa yor bu ma la soxlawee dama lay jot sama xarit nga. <laughs> xam nga nag comme nga gis yaay Fall ni nu mu soloo ni toog xam nga am na gars yi lu ñuy nappaatee mooy sol ay xojong xojong band band lu wane lu ragal lu nit ñi xam du foofu de. du ay wan luy ragal nit baatin mhm. dafa nekk benn affaire boo xamante ni dafa am benn jour maa ngi koy fàttaliku sama benn xarit taximaan la mhm. mu am benn kilifa bu mu romb ci benn baar mu wax nii si xelam tey sax rab yi dañoo ñëw gisoo sànq ba maa ngi def nii rek te yow télé Sénégal heure fi ñëwee da ngay da ngay féex yaa ko wax waaw waaw da ngay nekk à l'aise xoolal kilifa gi daa ñëw toog ci oto bi mu ne ko moom mu wax ci xelam mu ne kilifa gu toll nii di dem ci ay baar. kii moo bon. maanaam ci xel la ko wax ci xelam waa si. kooku dafa dugal loxoom ci poche bi rocc benn si ngoom alifu jox ko si ngoom bi rek si ngoom bi maas ko ngoom bi rek si ngoom bi maas ko oh parce que automatique xam na li mu wax ci xelam def na ko fës nag ba ma toppoon nga gis lu garaaw topp la fan fës téemaa tëgg programme boo xam ne mu day mel ni comme genre ndëpp exemple des na si ma ñëw taxawal nit ñi yëpp borom rab yi rawatina xale yu jigéen nekk si internet bi barki alxuraanu karim. mooy maanaam xale jigéen mhm. ku la ci gën a rafet. moo la ëpp rab. dëgg la ku la si gën a rafet moo la ëpp jinne cest à ñoom xale yi xoolal Sénégal da ngay laajte ndax xale yi ci internet bi Sénégal lañ dëkk wala France wala États-Unis waaw parce que dañuy xale yi léegi seen xeetu regard. ak mhm. seen xeetu fit ak seen xeetu capable du ñoom. du ñoom ok la ñu àndala leen koy defloo. dëgg la man damay toog ak nit munuma yaay faal bu ma xool parce que su ma la xoolee jàkk rek bu dara nekkee ci yow day day yeewu xale yi ci TikTok bi pour ñu sëy mhm. gisoo Sénégal est-ce que sëy tas ëpp li fi toog moo ëpp de moo boo déggee yi bari ñi ngi sëy di tas di sëy di tas di sëy di tas du ñoom mhm. la ñu àndal la te déjà dañ leen di jiiñ ñi dañoo reew ñi dañoo bëggul sëy rawatina jigéen ñi jigéen ñi bëgg nañoo sëy du ci ñoom mais nañuy faju mhm. nañuy faju faju sëñ Fallou nee na ku gëmul xar nga fuufa xar nga fuufa na la fuuf gàllaaj ku ne amul da laa jàpp ku ne jinne amul mm-hmm. fës gis nga man juru ma njëkkee gis jinne wallaahi taalaahi barki maam Cheikh Fall lan ma ma desoon ma jug sukkal ko jébbalul ko parce que yóbbu woon na sama xel fan nga njëkk a gisee jinne ay waay bëgg ko fàttaliku sax ak loolu kañ nga ko gis euh, bi nga amee ñaata at nga gis jinne euh, da dangaa jékki rek mu feeñu la c'est que man lu ma wax sax liggéeyal sama yaay laa doon def. exemple wax naa ko waxati ko ci émission yu bari. Mhm. ci marché laa gisee jinne nag ay minuit une heure doo dama doon jaayal sama yaay minuit une heure deux heures ba trois heures ba quatre heures la ma fa fekk moo fekk di ma def li ma. loolu guddi na di quatre heures man nag ba ma juddoo ba tey liggéey rek laay def. liggéey rek laa xam. Mhm. Mm, feuse jinne dafa garaaw. Mhm. moo tax su ma gisee ku leen di wax di leen ñeme dama lay reye dama naan xamoo am na ay jabari jinne ay jinne yu bari amuñu ko amuñu ko amuñu ko mm, jinne doo caaxaan maanaam boo ànd ak jinne maanaam ku ànd ak jinne sax du correct maanaam du nekk nit bu correct du normal waaw loolu moom mën na nekk da nga koy xam ne automatique man mii xam nga ne boo ma xoolee ay xam ne kii mais même sëñ Dame Seck boo ko xoolee xam ne am na ay jinne <laughs> xam nga nag yaa faal yow da nga sikk léegi yow nungu nga ne aw ah, yow xam nga jinne gis nga ko. mais ah, nunguloo ko sëñ daam ah nunguloo ko sëñ daam ah ku ko weer sëñ daam 73 la am di ko wàññi ba mu mat 45. ah. man da damaa fomp même Kounkandé bi mu toogee fi nee na am na ñaar kenn ki may mënoon la tudd ki ci des dama fàtte turam ah. mais gars yi dañu yor ay jinne yow nga bëgg ko weddi quoi. comme yow bi nga gisee jinne da ngaa jombi loolu li ma jaaxal yow jinne nga ba pare gis jinne di jooy boobu boobu nekk ma woon de boobu nekk ko boobu jinne dugguma dugg après la dugg daf maa dugg sama yaram aka maa garaaw mais xanaa bu duggee day génnaat xanaa yaay fa wala day dugg toog fa maanaam sa à dire exemple nan laa la ko man maanaam dañuy am loo xam ne comme dañ koy branché ci yow luy doxal sa cerveau mhm. man parfois damay nekk yaay faal simple man xam naa sama jànk yi ma ci kër gi moom ak sama rakk yi baal leen ma àq ndax chaque jour ma sàmbaalu seen kaw wax xataraayu mer su ma si paree nag pare naa. parfois da ngay nekk beneen nit quoi. parfois damay déconné. je te te te samay caprice ak samay déconné moom assuré ko ko attan sama xarit boobu noonu sama sama sama doom la moom. mu ngi noonu moom moo attan samay caprice. yaay Fall eh, fan yi sànq da nga fa dugg sax dama fa bëggoon ñëw xale jigéen yi ngay wax ne sëy yi divorce yi dafa bëri. gis nañu tamit temps yi sëy yi bëri na de mais ba gisoo ci benn sëy boo